salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di ci mbégte ak bànneex di ànd ak yéen saa su nekk comme ni ñu leen koy defalee saa su actualité amee nag dañuy daal di ci terrain bi daal di leen di indil ay information yu wér te ba tax nag jamono ji ñu daal di nekk rek ci période examen wane woon nañ leen ne à chaque fois nañu daal di ànd ak yéen li nga xamante ne si nag moo di déroulement examen yi chaque jour rek ñu daal leen di indil ay éléments fii ci Dakar Buzz tout d'abord nag dañuy daal di félic dañuy daal di euh, souhaiter bonne chance ñi nga xamante ne si nag ñoo di bépp candidat ba nga xamante ne si nag dangay ngay daal def ba démb ñu ngi woon nag ci euh, lycée LPA ba nekk LPA 13 ba nekk ci Parcelles Assainies tey nag ñu daal di àndaat ak yéen fii ci lycée mixte Maurice Delafosse nag fii nii nag daal nañ fi daal di am deux jurys lañ fi daal di am jury 13 90. ak jury 13 91 su ko defee nag dañuy daal di dugg ci bi ñu daal di waxtaan nag ñaari président jury yi après nag daal di jël réaction ñu nga xamante ne si nag ñoo di candidat yi ñoo ba tey nag ñu leen di souhaiter euh, bonne chance wante di leen wax aussi tamit ngeen wéy di ñu suivre fii ci Dakar Buzz ñu daal leen di topp ak ànd ak yéen rek ba li nga xamante ne si nag moo di jusqu'à proclamation euh, résultat baccalauréat yi. ah ça va sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di ko gërëm. Blaise Diagne di def série L prime ne candidat waa si si Dalafosse bi. tey mu nekk seen euh, deuxième jour si épreuve yi naka nga ko gisee. a épreuve yi moom ah yàlla baax na de boo jàngee moom di nga si mën a génn ah man moom loolu laa jàpp boo jàngee moom di si mën a génn. ngeen def filo bi. ah bi waaw dañoo ñëw si premier kii bi ni ñu koy waxee tey premier sujet bi ñu jox ñu euh, philosophie et religion. deuxième bi indi euh, nature et culture euh, kii bi nu ñu koy waxatee langage waaye yëpp la waaw nature et culture la léegi ñu ñëw si commentaire bi gars yi indi liberté mhm. ah dañ ñoo toroxal toroxal nañ yaakaar yee tas liberté état waaw ñu ñëw génnee ñu kii philosophie et religion ak ah, nature ah, waaye feene langage bi langage bi langage bi def nañ bind nañ mhm. bind nañ de bind nañ on s'attendait bu ne mën nañu xam exactement lan lañ lan moo war a génn on s'attendait à tout mais disons que c'est l'annonce du sujet qui était implicite c'était ça problème non non foofu <laughs> la ñu waroon <laughs> mais bon Mais on a su faire de notre mieux, on a écrit, on a été, disons, on a essayé d'être pertinent le plus possible. Non, et Di dis lañuy nekk di ñaan à ce que aussi les collecteurs soient compréhensifs. Noonu bañ a naka laa koy mën a waxee. Exactement bañ loo aussi di empressé wu pour finir la correction le plus tôt possible. Aussi nañ jël seen temps. Philomène nañu loo. 8 ak 7. Waaw déedéet na mat 10 rek baax ñëw rek comme gisoo ni ma <laughs> bi français bi euh, ah c'était abordable waaw waaw. ay eh, roman génn roman waaw ay bind nañ de ah. après midi bi ban épreuve ngeen hmm? euh, anglais lañ def. waaw moom tamit c'était abordable ah, parce que. sujet boobu English bi ah. it was very hard hein parce que tamit seriously man yàgg naa def anglais mais j'avais pas aussi difficile noonu aussi nañ doose tamit tuuti nous sommes des French speakers. texte bi moo abordable <laughs> mais bu fekkee wàllum question yi moo xaw a moo xawoon difficile question yi mais texte anglais bi c'était abordable comprendre nañ texte bi bind nañ bind nañ jox nañ ñu bind delloo leen bu dee bind rek la moom dinañ am étonnement avec étonnement du jury. non unfortunately anglais bi c' était très difficile c' était un langage très corsé non non maman sérieusement je m'offusque devant un anglais très difficile ay french speaker lañ nañ ko ay english speaker non non nañ wàññi tamit dose bi tuuti. demaguñu fenn aussi niveau académique li ñu toll session normale voilà étude normale la ñu nekk dafa gum ni dafa guñu étude supérieure donc nañu xaw a yaram tamit tuuti moi je m'attendais pas à de telles épreuves mais bu dee français bi moom voilà ah, je suivi <laughs> français bi moom je suivi avec bi AG moo des AG waaw AG ñun ñëpp ñun ñëpp ñun moom bu ñu sañoon moom kii mooy génn seconde guerre mondiale hey de kii la moo ko daal man xaw ma sax du ma jànkatul lu soo. suñu sañoon de Palestine mooy génn ñu wax dëgg neex yàlla waaw waaw ah parce que franchement nag ñun xam nga nu ñu bindu la sax. sama sañoon tamit Palestine mooy Israël Palestine aussi voilà surtout sujet d'actualité la on maîtrise le plus ça euh, ce sujet noonu suñu sañoon aussi may génn mais malheureusement léegi histoire on a l'habitude de faire naka laa koy mën a waxee. combinaison de plusieurs thèmes en même temps noonu loo si jàng rek loo si jàngul aussi ça peut te déstabiliser te mënuñu jàngandoo yëpp en même temps. ñu ñëpp histoire bi mënuñu si dara de géographie la ñu yaakaar ñu ñëpp toog nag statistique bi ak ak tontu ci biir texte bi waaw waxal dëgg yow tamit ak commenté kase loolu moo ñu loolu moo ñu fi bàyyi. ah si surveillant moom surveillant rek lay doon moom dañuy bañ élève bu leen yàpp ak yooyu noonu xam naa man loolu laa ko mën a jàppee mais tamit élève bu jàng neuf mois. benn walla waaw bàyyil neuf mois bi nga jàng neuf mois benn journée rek nga ñëw nit ki nit day jum nit matul boo nangoo téléphone am sanctionné ko après day merci moom mu nar a toogaat beneen un an boo xam day perte te yow instant ton yi nekk si jamono boo xam ne année boo perte jàppal ne pare nga perte nga sa sa salaire te ñoom ñoo war a bàyyi loolu te xam ne nit matul nit mën na indi téléphone am sax bañ bañ si bañ bañ ko utiliser man moom su ma sañoon moom mën nañ war a war nañ gën a apaiser dañ leen di prévenir ne leen carrément bakk waroon leen a indi waaw loolu loolu dëgg la dëgg la parce que boo liiree convocation sax dañ koy bind mais tamit xam nga rek élève moo dëgër boob élève dañuy bañ bul la ñuy bañ. bul bul boo nee bul rek ñoom dañuy noonu lañ mel mais yow yaay comprendre rek nga xam ne yow di nga am di nga ami di nga ami ay ay ay doom wala ay rak yoo xam ni dinañ mel ni ñun dëgër bopp. bu buñ ko buñ la buñ ko ko defee du du leen neex loolu kese la affaire yi du question dañoo dëgër ba mais yaay am compréhension boo xam ne sa rakk dina ko defi wala sa mag moom moom loolu laa xam. exclure bi ñu leen exclure noonu ci bag yi ñu jàng neuf mois. même même même nañ nangu seen téléphone yi ba épreuve jeex ñu jox leen ko ñu jox leen ko. moo gën ba sax leen ko garaaw. mais nañ def seen bac mais nañ def bac bi rek mënoon nañ leen bàyyi ñu def seen bac na ko franchement. donc ñu confisqué ko peut-être Euh, dans les cas extrêmes noonu bañ nañ ko joxaat aussi noonu ça c'est l'idéal parce que tamit hier j'ai vu les vidéos et ça m'a vraiment affecté de voir que les élèves là jàng nañ pendant neuf mois après ils étaient vraiment effondrés affaire bi da leen métti woon aussi bon comme mon ami l'a dit aussi mënoon nañ tamit tolérer mais aussi certaines fois quand on tolère wax na ko tamit nous sommes des sénégalais amul jom aussi lu mu def benn yoon dana ko maytul dina ko defaat aussi maytul bañ a dégg wala bañal ma defal lii nii disons que nit ki tamit sa liggéey tamit kese la président jury bi il a juste fait son travail et ça n'a pas été interprété et de la bonne manière non non parce que mënoon am tamit toute tolérance à vrai dire si élèves yi tamit tuuti mu ma xaw a leen yërëm mais malheureusement. bu leen andi seen téléphone bu la andi même bu leen andi sax ngeen dénkaane man moom dénkaane naa sama bos mu kaa dénkaane. Mhm. ci école mais conseil boo leen di jox ban conseil lay doon parce que après bagi béfe bi moo ñëw te aussi o aussi. xale yi samp leen de samp leen de bag bi rek war na leen a jàngal ñu ngi bëgg a dee wax dëgg fa neex yàlla parce que téléphone yi tamit téléphone yi tamit boo leen ko mënee bàyyi seen kër parce que ñun tamit xam nga bu leen andi bag mooy bu leen andi tamit BFEM benn instant même. téléphone sax yow ñëw jàng neuf mois après ñëw pour benn jour mu yaaxal la ko ndax lan affaire téléphone ak yooyu noonu même bu ñu la ko kiiwul sax bu ñu la ko waxul sax yow mën nga ko bañ a bàyyi nga bàyyi ko sa kër parce que wóorul même nga joxe ko sa téléphone sax nga doxee ko si digg école bi sax mën nañ la jàppee ne da ngay tricher affaire yooyu te da lay yaaxal vite fait mooy loolu téléphone yi moom mën na. téléphone ñëpp ko am aussi téléphone. téléphone ñëpp ñëpp a ko am mm-hmm. ñu ñëpp a ko bàyyi fii suñu kër aussi donc euh, aussi il faut dire que bu doon sax euh, c'est dans un contexte où dañoo fekk benn classe toute toute entière yor téléphone bu fekkoon ne sax peut-être ils étaient répartis dans les dans tout le centre peut-être mën nañ ne waaw non mais benn classe exceptionnellement tout le monde s'est retrouvé avec son téléphone même si c'est éteint c'est considéré comme une euh, naka un fraude donc c'est puni par la loi ah du benn classe kese ah donc bon le président mënoon na na kii naka la koy mën a waxee sax mënoon na tolérant gën a indulgent en fait non mais bon c' était dans l' exercice de ses fonctions mënuñu ko ko reprocher non non. dafa jéppi woon ah xëj na élèves te dañoo ëngës la de élèves dafa ëngës waaw loolu tamit da ciy tamit xëj na dañ ko sonal rek waaye fii élève bu jóg rek dina sonal professeur am force day am. wala baa nga sonal seen censeur ñu ne suñu bos dañ ñoo bërgal <laughs> ñu dañ ñoo bërgal <laughs> merci beaucoup. bi des littéraires mathématiques jàng ay statistiques je ne sais pas quoi ay polynômes x yooyu yëpp aussi nañ ko supprimer pourquoi man maa ngi nii yàlla ma fi mi ñu yërëm man mënuma dara mathématique danaa nar a jooy sax dinaa wàccu sérieusement quand je vois les mathématiques je vomis demee laa koy def mais sérieusement je vais dama ragal am migraine de wallahi mënuma si dara. ça va na nga euh, bonjour je m'appelle Grace Axel Wango et je suis élève en l vous êtes candidate aux examens. oui candidate officielle oui. vous êtes dans quelle série. Euh, mhm. comment c'étaient les épreuves que vous avez déjà fait. Euh, jusqu'à présent les épreuves ont été abordables. philo. j'ai écrit daal. je sais pas trop. Philo, c'était un peu dur. <laughs> On a beaucoup pleuré, mais par la grâce de Dieu, on a écrit, on a rempli nos feuilles. Euh, moi, personnellement, j'attendais art ou liberté, et liberté est sortie. Oui, en commentaire, oui, c'était bien, Dieu merci. Euh, euh, le matin, on a fait français, et là, on va faire histoire-géographie. en histoire géo. Palestine. Avec euh, Palestine et les relations Est-Ouest pour les décolonisations Sénégal ou Gold Coast et en géographie Allemagne ou Japon. Oui, je pense que ça sera abordable, mais on ne sait pas encore. Euh, déjà, le ministre avait déjà parlé à propos de ça. Et même à l'école, on avait dit, même si le téléphone est éteint, il ne faudrait pas l'amener. Donc, euh, les élèves en sont responsables parce qu'on leur avait prévenu, de ne pas s'inquiéter parce que même si euh, y a le stress, il faut savoir que tu as appris et tes efforts comptent et le reste est dans la main de Dieu. président du jury 1390 euh, du centre euh, lycée mixte Maurice Delafosse waaw examen da ñu ngi déroule normalement ñu ngi ci deuxième jour bi donc premier jour bi def nañu philosophie ak euh, langue vivante une euh, tey jii ni def nañu français bi donc euh, des na benn matière géographique ci ngoon waaw tout se passe normalement waaw waaw surveillance bi ça va ça va pour le moment ça va ñu ngi ñëwagum donc euh, à part quelques retards le matin mais ça pour le moment ça va ça va très bien pour le moment. moom vraiment ñu ngi ciy veillé pour les téléphones moom c'est interdit dañ koy vérifier depuis ci buntu bi. vérifier ndax élèves ñëw nañu ak saa ak portable yooyu ku ñëw ci portable dañ koy dañ koy nangu ci biti balaa ngay dugg ci centre bi. 90 ba léegi amagul benn cas de fraude ak voilà des difficultés gisaguñ ko bon c'est vrai que loolu moom peut-être ci liggéeyu ku ne la ñun daal fi bu ma ñëwee dañu ma ci euh, alterné bi la artu kii bi ne ko yi moom foo ñëw ak portable donc euh, depuis ci bunt bi euh, dañ leen fay surveiller ñu bañ a dugg ak portable ak yooyu yëpp pour jàppale leen ñu bañ a dugg ak portable am na ña ñu ñëw ak portable mais ci biti lañ leen lañ koy nangu donc euh, mais li xew li am ba am mooy que moom ñoom ñëpp xam nañ ne centre bi waroo fa ak téléphone. donc office du BAC itam jox nañu ay instruction yu leer ku ñu jàpp ak portable ci biir centre bi dañ lay dàq loolu moom instruction yu wóor la danañ koy wax waxaat nañ ko donc man am ma ci benn problème li am Kaolack itam bu amoon fii rek loo li xew Kaolack mooy xewaat fii. waaw mais bon ku jàng na fu moo aussi te lu ñu la wax mënoo koo dëgg aussi mais la conséquence ne peut être que ça loolu rek moo fu mën nekk kuy jàng kay lu ñu la wax da koy dëgg je crois que man dégg naa kay nit wax nañ ko ci rajo yi wax nañ ko ci télévision yi ba wax nañ ko ci église yi wax nañ ko ci jumaa yi ba ci lycée yi balaa ñu dem da leen koy wax kay ku yor portable moom dañu jàpp ne sa tayeef la ku ku ku def maa tey nag itam loolu moom mënuñ la cay jàppale bon loolu moom je crois pas mu am mu am am solution parce que pour man dama d'accord sax ne portable warul dugg ci centre parce que en dehors du fekk que élève bi mën na cee tricher loolu propagande bu gaaw la ci fuite parce que épreuve yi 7h30 lay commencer. am na ñoo xam ne vu les retards ak yooyu ñii dañu commencé sept heures ñii di commencé huit heures ñii di commencé huit quinze ci diggante ko yor téléphone nag ci biir centre bi diggante mën ngaa jot information yi sa beneen waaye mën na koo jiitu photo yi jox la ko donc ci quinze ou trente minutes nga xam information donc loolu mu tax téléphone bi sax ci journée bi waruñu nangu sax benn candidat mu yor téléphone waaw donc a ah, waxatuma nag nga yor ko ba ci biir centre bi donc euh, avec mu gaawee léegi ay le décalage am ci diggante jour yi c' est impensable ñu accepter euh, un téléphone loolu pour man mu warul a ne bon loolu moom office office du bac ñoo koy def dafa am benn commission boo xam ne dañuy fay yóbbu ce qu'on appelle la commission de discipline au niveau de l'office du bac ñoom ñooy saytu bu xam gravité téléphone bi nu mu ko yore ak yëpp ba xam lay defaat bac ak kañ la du defaat bac loolu moom du président du jury moo koy décider président du jury daal dañu lu muy décider mooy que ku mu fekk ak téléphone portable mu bind na fekk na la téléphone portable bindal la exclusion da koy coché ci machine bi année boobu moom noonu am bac la ca des nag moom ci président la ca des nag mu ngi des ca office du BAC mais ñun moom lu ñu information ñu am ak lu ñu xam mooy que ku ñu fekk ak portable exclusion la boo ñëwee def si back sax doo am parce que dañ koy coché ci machine bi ne ko yow da ngaa indi woon portable loolu moom cas de fraude la dañu ko wax loolu information la te ñun may nañu ku am ku fekkente ne nga ñëw ak portable fii ñu exclure la loolu moom suñu sañ-sañ la daal suñu sañ foofu la mën a yem la ca des des na ca office du BAC ñooy béyee kandaay la ma ñu jox daal mooy que bu bak amatee nañu bay portable ci kër yi ku ñëw bañ indi portable lu ñu la wax ku jàng neuf mois mën na dëgg mën na tàggatoo ak portable ne serait-ce que trois jours nga delluwaat jëlaat sa portable donc loolu man conseil boobu laa leen di laa leen am lu ma leen di wax quoi. Euh, bon le dernier moom mooy remercier effectivement vous êtes venu vous êtes une radio de buzz mais <laughs> fi quand même il n'y aujourd'hui merci. <laughs> a pas de Hmm, hmm, hmm. épreuve bi métti na saf na ñoo ngi dee ay xale lañ ay ndaw lañ métti saf na de. filo ngeen def naka fi la. filo bi de maa ngi liir liiraat mais ba tey xaw ma lu sujet bi di wax xaw ma lu muy xaw ma culture général la xaw ma <laughs> dafa saf. saf na français tamit français bi ay dicté laa si xamoon mais léegi ay roman yu kenn xamul Habib dafa métti jàng nañ ko de mais dafa saf saf on n'a pas compris tey si ah def nañ anglais instant bi AG la ñuy def ñoom Mao Zedong ñoom càngaay teg ñoo nga xam ne dee nañ bu yàgg ñu ñu koy kii nii du ñu jàngal ay limaamu laay ay <laughs> ay Serigne Touba waaye ay Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu jàngal ay Mao Zedong. après des na mat mais mat bi comme comme matu es. Hmm. mais mat bi comme matu es dafa metti de waa metti na trop waaw. sujet décolonisation Sénégal Sénégal waa nañu jàngal Sénégal Sénégal waa Algérie du tey la seen indépendance wala waa loolu yëpp suñu yoon nekk si waaye ah yàlla baax na daal yàlla baax na. candidat yi nga xam dañ leen a ndax dañoo yor seen téléphone. waa gis naa leen mais kooku nag da leen waroon a baal nag téléphone yi garaawul garaawul de. waa dañ koo fayoon ah mais élèves yi duñ élèves yi dégg moom dañ dëgër bopp téléphone moom si ñun la bokk nag mhm. waaw jàng neuf mois ñu ne la xaaral ba année prochaine non damay bàyyi dem defi jànk jànk ah, kaay kaay kaay ah, téléphone yi nag lañ war a bàyyi seen kër ñu dem affaire yi yàggul 4 jours kese la ñu dem def suñ paree seen téléphone mën nañ ko utiliser nu mu leen neexee. De rien. Ouais. Ça va bien et toi? Ça va. Ça va bien oui. Mm. Euh, instant bi non je suis pas stressée parce que euh, ci man épreuve yi nu ma ko doon xaaree genre dama foog ne woon day gën a saf que lii mais ça va de pour le moment. c'est pas nag yàlla nag mooy joxe on sait pas mais ñun lu ñu naroon def def nañ ko ba pare. saful ci yow ah ça va ça va. film moom si wax dara parce que xaw ma mais normalement état ak liberté mais ñu def defe naa dafa mu fit de uh-huh. ñu joxe euh, sujet un laa jël affaire religion croyance. Euh, AG. ban sujet ngay Palestine. parce que moom laa gën a comprendre. ah euh, si man président du jury bi dafa dafa soxor parce que déjà man bu ma seetaanee information yi nee nañ ñoom dañoo indi seen téléphone juste pour parce que xamuñu woon seen centre léegi dañoo indi woon téléphone bi pour xool seen centre yooy noonu. mais jaruloon muy muy kiiwe nii parce que ñun fii nii kenn vérifié wu suñuy téléphone ñun ci suuf suñu classe yi de ñun vérifié wu vérifié wuñu non indiwuñu c'est pas mhm. que waxoon nañ ko ba pare waaw benn ins mais man dama leen comprendre parce que ñoom dañoo ne dañoo indi seen téléphone pour xool seen centre parce affaire yi dafa sori te yenn saa yi seen parents yi ñooy na ñoo jël si moo tax ñu indi seen téléphone mais utiliser ko kañ pour tricherie wala genre jaruloo ñu leen di exclure lii moom. bu dee ñoom dañ leen nar a aj ba 5 ans ci man bu ñu defaat bac ñu dem seeti liggéey moo gën parce que dañuy per seen temps âge bi day dem. bu fekkee dañ leen aj ñu bañ def bac année bi rek. leen di aj ñu bàyyi. <laughs> muy merci ñaanal leen ma. ñaanal leen ma sonn naa pour sama yaay rek laa koy defal. bon man la président jury jury 1391 lycée mixte Maurice Delafosse euh, dans le jury euh, nous avons bon démarré ci jàmm euh, examen bi mu ngi daw ci jàmm euh, y pratiquement aujourd'hui euh, benn absent moo fi am benn absent moo fi am c'est un garçon euh, épreuve français lañ doon def depuis ce matin depuis suba de huit heures à midi def nañ ko candidats yi c'est trois cent soixante-cinq candidats euh, dont cent trente garçons et deux cent trente-cinq am Kaolack euh, le cas euh, ce cas la vraiment euh, le président jury a raison man moom lay pourquoi parce que euh, c'est inscrit dans le règlement intérieur que les téléphones portables sont interdits même d'autres documents sont interdits donc élève bi moom moo war a jël ay matuwaayam faire de tel sort que bu ñu ko bett parce que yenn yi c'est de la tricherie donc président jury bi il n'a fait qu'appliquer règlement les règlements intérieurs donc dans ce cas euh, daal lu xew xew daal élève laay jox toor bi ko parce que élève moom moo war a jël matuwaayam suy dem examen sincèrement. ah soxna si man daal pour man daal euh, yenn erreur yi wala yenn kii bu ko nit defee il faut aussi ñu jël ay mesures parce que euh, rigueur dafa baax dafa baax parce que ces élèves là mën nañu wax ne ñoom ñooy nekk ci ay médecins ñoom ñoo nekk ci ay ministres ñoo nekk ci ay députés imaginez un médecin bu def erreur dans un dossier médical donc kooku. c'est pire même, c'est catastrophique. Donc ces la là pour man il faut rapidement appliquer la règlement avec la rigueur. Et BAC, c'est un examen qui est sérieux. Donc élève moo war a xam ne man damay def un examen qui est sérieux mu jël matuwaayam parce que fii en fait euh, avant ñoo commencé président jury yëpp dañuy fàttali élèves yi règlement intérieur yi donc bu ñu la waxee lii donc da war a def lu ñu wax waaw mais ñëw jël say téléphone teg et on sait que téléphone c'est interdit Euh, les documents sont interdits donc yow yaa war a jël say matuwaay yoo xam ne euh, du ñëpp sanctionné mais bu fekkee jëloo say matuwaay donc dans ce cas la, euh, la rigueur va s'appliquer et, et voilà donc moom mooy ñoom ñooy sonal seen sanction bi ci exclu leen ci examen yi kese la yam wala am na leneen lu ci nekk. ah loolu moom man xawma ci dara parce que sanction yi souvent c'est office de bac qui définit donc le président jury moom son rôle c'est quoi c'est juste d'abord. S'il voit ces cas-là, automatiquement, il fait un PV et il transmet ça à, à, à la hiérarchie. Maintenant, c'est à la hiérarchie de définir les sanctions, parce qu'actuellement, rien n'est clair. Maintenant, peut-être ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais bac, comme nous l'avons c'est un examen bu sérieux la donc élève bu koy def danga war a jël say matuwaay danga war a jël say matuwaay donc su su jël bu jëlu ay matuwaayam donc euh, sincèrement voilà bon di leen remercier rek ce que vous êtes en train de faire euh, pour faire passer l'information di leen remercier di leen wax ne euh, au niveau euh, du jury 1391 lycée Maurice Delafosse épreuve yi ñu ngi dérouler nice amul benn problème voilà euh, waaw bon sap bi moom c'est du problème ci examen donc sap bi moom du war la du problème ci examen donc voilà ñu ngi épreuve ñu ngi déroulé normalement ñu ni ñu ngi war a démarrer épreuve ISSO à 14 h pour démarrer la deuxième épreuve de la journée merci.